تقرى la raja ngir di jot nag foo toll ci biir réew mi wala bitim réew da ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew xaku nee na nanu faatu ومهتاء يقولنا خير المراقب يا حفو يا الله سما ترندو نينا لا تك يا ربي بسمين تواخسنا فاغفر لنا ثم يا حفو يا الله ني فارو من نحن يا أسارا نحن أسارا وسوما الدين يفككنا من أتهم السنبياء حقو يلاو فرحنا نحن ساليكم والجوال يرزقنا خير المواعيب يا أبو يلاو نحن الحيارى نحن الحيارى نحن لا يارا برم دار السلام لنا نحن لا يارا كسب رسول الله نحن الحيارى فرغ نينا نحن الحيارى وحلام يعلمنا شريحة الهبية حطو يلاو باي سيد محمد البشير نيم وأهتني ولا غنى وأفني مبصرا هبا لصحوتنا باب الأكابر يا حفو يلاو سمام نينا وانتقني تابعا قلا لقدوتنا خير الخليقة يا حفو يا الله سمام نينا وانتقني ربي حافساً شريحته خير السراء يا حفو يا الله من فارو من وانتقني ربي سائقا قصف رسول الله دفلني نيوما قالكو وانتقني ربي وانتقني ربي وانتقني ربه سائقا حقيقة مع الموافات يا حفو يا الله فرحنا نصلي وسلم عليه سرمدا أبدا ولا لوسب يا حفو يا الله وافتني ولا غني وافتني ربي من وهن ومن مرض ومن مصائب يا حفو يا الله برم دار السلام نينا وافتني ربي من بلوى ومن حرق ومن سوائق يا حفو يا الله فرح نينا واهتنا ربي تقوى قوافية ما رافعت يا رب يا الله بارك الله المجيد في القلق ما يسر وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وسفيهنا محمد وقائدنا محمد حين الرحمة الربانية حين الحق التي تتجلى حين المهارف الأقوم وسلم وصلى الله على سيدنا محمد على طلحة الحق بالحق وعلى آله وأصحابه ومن ولا منهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوان نحييكم تحية صافية تهم الهادرين والقائبين من الإخوان والجيران آباء الكرام وأبناء السامي من رأس أسرة سيقنا ومربينا وحبيبنا ومولانا عبد السلام يهني سيد محمد الفادي القليف يرسل إليكم تهية من جميع الإخوان ولجميع الجيران ولجميع الأقلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته lépp moo mujj lépp jaam bi moom lay njëkk a jaam bi moom lay njëkk a xamal mu jaamu boromam ay junney at mu door a fent ca googu bind aadama aadama nekk diir bi fi nekk ñu yónni fi te ñetti téeméeri ak fukki yonent ak ñett ñooñu ñëpp lan moo tax ñu yónni leen pour ñu préparer di kam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla na wa yakuna rasulu alaykum shahidan wa takunu suhadaa ala nnas yónni naa yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam pour muy ñëw settantal ñetti téeméer yi ma fi yónni woon ak fukk ak lan lañ def ñu ngay julli ci yonent boobu sallallahu waa Ndiobène Diaglé ci làmmiñu yaa ngi dem samay mbokk yaa ngi dem samay xarit yaa ngi dem ci réew mu xormaal yaa ngi dem ci réew mu jàppale te man xorma te jàppee woon ko ci la diina sëriñ bi mu ne mu ngi leen di nuyu bàyyi salaam yow ak sa waa dëkk yow sa ak sa waa tund yow sa ak waa kër te di ñaan yàlla sa mbooloo yàlla ko yàlla yokk dëhëral ko def ko muy mbooloo su ñu wax ne dañuy gàmmoo sa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa wax ne يا أيها الناس اتقوا ربكم واخسوا يوما علماء وينيوني يا أيها الناس اتقوا ربكم dafay doxee ñetti melo ci jàmm bu njëkk bi dafay doxee melo fi aalu ilaaya di jëfi moo tax yàlla ne ittaqu fitnatan fitna jëf laaj rek dafay dellu te afaalul ilaahiyati am ñoo xam ne foofu la ñuy seedehu yàlla lépp lu am rek ñu xam ne yàlla moo ko amal nangu ko moo tax mawlaana wax ma ne tuxadrikul qudratul xolya bi la bal bil ayaanin wa kasin saadiqin yaqin maa salama ñenn ñi di seedehu yàlla fi sifati yi moo tax yàlla ne alam yaxlam bi anna allaha yare kalla yàlla dafa bugg foofu jaam bi def fi seen bokkut ak ittaqu fitnatan kooku mu ngi def ci afaal sëyi sëyidu afaal inna allahi wahdahu yanaalul maqaama la raja ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew